asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi tudd Soxna am Pouy dëkk Touba Ndiatou bokk ci daayira Matlabul Afia Touba Ndiatou. yëg-yëg bi xanaa kontaan rek ak mbégte ak fierté lañ ci am di sant Serigne Touba bu baax a baax di jaaram maam ibrahim a Fall bu baax di kontaan bu baax a baax nag di sant suñu Serigne Serigne Saliou Afia bu fii nii Diourbel. da ci am mbégte bu baax daal ak kontaante bés bi ah niir dañ ko taxawee rek gis nga soxna yi nu ñu taxawee ak ñi nga xam ne ñooy Baay faale góor yàlla yi ak suñu yaay yi ñeneen yaa ngi ci waañ bi ñi xam ne moom la ñuy xiwloo ñeneen yaa ngi foofu fii nii ñu ngi defar lee ñii ñu defar café Touba bi ak ñi xam ne ñu ngi ci biir kër yi pour gan yi nga xam ne moom moom ñoo ñëw xew bi nga xam ne moom lañuy ñu taralee gan yi noonu lañu koy defaree waaw sama mbokk soxna xanaa di leen gën ñaax rek ñu gën góor góorgóorlu te xam ne tànku Serigne Touba moom tànku kanam la du tànku du ginnaaw kanam rek lañu jëm waaw kanam la tànku ginnaaw moom. Mhm. asalaamaaleykum seen Cheikh Boy Fall moo ngi ziare waa Daayira Matlabul Afiya bu baax a baax a baax di nuyoo ñëpp di ci bés bi ñuy nekk nii tey muy bésu mbégte. muy bëssu borom tuba ñu ci gërëm yalla bu baax parce que defal nañ ko dewen defaat ko ren muy gën di neex di gëna baax di gëna neex ci ñun ñuy gën ci yokk bu baaxa baax di sant ñepp di gërëm ñepp di ziar ñepp man nak mom xamna comme dama wul wax lool lool lool mbala bok ma dama ko mënewul sax lay wax mais ma ngi mun dal kontaan trop di ñaan yalla ñukoy def ay atti atti at ñu ci yokku ñun ñepp ñun waa Njaata ak waa tund bi yëpp ñun ñëpp ñu ciy gis suñu bopp ñu dem ba lii nekk ñu ci rey ay ay nag ak ay gëlëm ak lu ne parce que bés bi moom suñu bés ñun ñëpp la luñ ci def ren rek dinañ ko gisaat déwén parce que moom bés bi moom euh, mbir mu yéeme la daal fu mu jogee daal ak ak fu mu toll nii moom lu yéeme ngi si moom lu yéeme loo xam ne sax moom vraiment tuuti naa ci xam ko sax waaw di leen gërëm rek ñu gën a góorgóorlu ñun ñëpp. ñu koy def comme ñi koy Baay Faal gën a rafet euh, euh, gën a raxas xol yi bu baax woyofal suñu bopp xam ne lii moom mbir mu mbir mu yéeme ngi nii daayira rabi daal comme ñun Baay Faal fu mu ko ak fu mu toll nii daal mun nañ cee war a jàngat lu bëree bare boo xam ne borom Tuuba daal moom moom moom jar jar naa liggéeyal ku def ci moom dara daal dañ ko gis incha allahu rabi kontaan naa si trop nag moom mbégte moom am naa ko. comme mbokki taalibe yi maa ngi nuyu ñëpp di ñëpp. may nuyu jawriñu góor yi di nuyu jawriñu jigéen yi waa ñun boo gisee ñun ñun ñooy waa Axlu kafe waa lii mooy équipe góor ñi euh, ñi jàll léegi mooy Yaay Fall yi waa ñun góor ñi nag euh, sëñ Cheikh bi doon wax léegi mooy suñu mooy suñu jawriñ waa euh, Yaay Fall yi tamit suñ muumi soxna muumi Guèye mooy seen jawriñ waa ñun moom macha allah ñun moom fii lañ féete mooy lii suñu liggéey. waa ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp nag naan waa lii daal moom ñu ngi koy rafetlu bu baax. te di wax ñëpp euh, ñu gën a góorgóorlu quoi parce que euh, lii liggéeyu sëñ bi la lu si waay lu si waay lu si waay def euh, ren benn déwénee di nga ko di ko mën fukk. waaw kon kon kon ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan ñëpp ñu gën a góorgóorlu gën cee jàpp te xam ne mbir mi incha allah chaque jour day gën a day gën a baax di gën a neex rek. waaw kon dañoo kontaan macha allah dañoo kontaan trop dañoo kontaan trop ndax mbir mi moom dafa neex trop boo jéggi dayoo quoi. wax dëgg vraiment kontaan nañ bu baax. ndax liggey bi niñ ko mom ma sha allah xalé yu goor yi and nañu seen liggey rafet na contane nañ ci bu baax daal yegg yegg bi bañ ñun bañ xeye ba tey ñu ngi ci waañ bi di tok berndel pour nit ñi ku ñew rek ñu fas nga xewlu ndax contane contane nañ ci bu baaxa baaxa baax a baax ndax yëfi sëriñ Touba mom tanku kanam la am amu tanku ginaaw xana nañ ci rek ñun nañ and doon ben yoo xam ne dañuy liggéeyal sëriñ Touba rek a ñu fee indi waa daayira bi ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm ñu ngi kontaan ci ñoom ndax wax dëgg ay xale lañ tuut tànk lañ waaye wax dëgg am nañ pos-pos ci yoonu sëriñ Touba.